Eh, di rafetlu taxawaayam bu baax ndax tey dañ fi daje ngir eh, mën a eh, maanaam mottali kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci liy organiser forum mondiale de l'économie sociale et solidaire forum boobu nag forum bu yaatu la boo xam ne réew yi ci àdduna bi yépp dañuy daje fenn bii par nag gannaaw bi madame le maire Soham Wardini bindoon njiitu réew mi pour mu mën a présenter candidature Sénégal ngir ñu mën a def activité boobu fii ci Sénégal mu nangu ko tey yàlla dogal na ñu ngi mottali liggéey boobu loolu ñu koy mottali nag muy ville de Dakar muy GSF muy RACTES muy plateforme bi ak muy ministère bi ñu ñëpp dañ ci ànd lëkkaloo def ci pas-pas pas-pas boobu ñu ciy def dañu gëm ne économie sociale solidaire bi nga xam ne président Macky Sall bi muy ñëw dafa ne def naa ko deuxième initiative nationale dina am njeexital ci jigéen ñi dina am njeexital ci ndaw yi dina am njeexital ci koom bi nga xam ne bëggal nañ ko askan wi te ñuy àndandoor di ko defandoor kon loolu bu fekkee ne askan wi rek a ko tax a jóg ñi nga xam ne askan wi wóolu nañ leen moo xam état moo xam ville de Dakar moo xam yeneen acteurs yi dajaloo pour ànd ci liggéey loolu lu jara rafetlu la tey ñu ngi ciy sargal bu baax le maire Barthélémy Dias ndax loolu gis na ko taxawee na ko doxee na ko waxee na ko kon incha allah ñun tamit état du Sénégal comme ni ñu ko président Macky Sall santé danañ taxaw ci wetam àndandoor def ci liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne euh, Sénégal rek ak réew mi ak askan wi ñoom ñoo ciy génn vainqueur kon maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.